bismillah arrahmani irrahim wasala <clears throat> allahu wasallama wa baaraka ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxbih wa ala asna xadimihi wa saairi ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi bokki pas-pas yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq te di leen baal xaq ngir yàlla tey ñaan sunu boroom ci barkeb Cheikhul Xadim mu dinu dolli njub ak njëggal ak jàmmi àdduna ak alaaxira ba faw ginnaaw loolu noo ngi santati suñ boroom cant goo xam ne duñ ko wutal ab dayo duñ ko wutal aw dig gu dëggu gu yaatu ndax seen mbooloo mii ni ma ko yàgg a waxee mbooloom ay tuut tànk lañu yoo xam ne dañoo amee pas-pasu bu mag ndax sëriñ bi bim daataan woote dafa wax dafa fëx wuti suñ boroom yéen ñii nag da ngeen a bokk yi ñuy fëx wuti ko ànd ak moom jëm ci suñu boroom te loolu ngëneelal yàlla ak barkeb sëriñ bi moo leen ko may ni nga xamee ne noonu la ko Cheikh Mouhamadul Muntaqa yal na fi yàgg lool te lim bëgg lépp yàlla defal ko ko di waxe ne sëriñ bi nekk na fi bañ noppi ko fee gis musta boole boroomam ak dara loolu moom mooy dëgg noonu la amee yéen itam yàlla defal na leen tawfeex su ma nee am ngeen fullay jàpp ci sëriñ bi wuti ko topp ci ginnaawam xëy na sax fulla ja mën naa am waaye du fulla tawfeexi suñ boroom la suñu boroom mooy boroom ngëneel lu yaatu lu mag loo xam ne daf koy jagleel koo soob yéen nag jagleel na leen ngëneel loolu ngeen ànd mànkoo takkatoo di fës yéene xeñtu yoon wi nga xam ne moom la sëriñ bi rëddal jullit ñépp ngir ñu mën cee jaar ba mën a texe bu ëllëgee mën a mucc itam loolu noo ci sant yàlla bu baax di leen ci jaajëfal bu baax a baax xanaa di leen ci soññi rek ngeen xam ne ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha di waxe yàlla na fi gën a yàgg te lim bëgg lépp yàlla defal ko ko na mu ko bëggee yittewoo suñ boroom yittewoo ëllëg xañul kenn ab cëram ci àdduna amul kenn ku muy xañ ab cëram ci àdduna ndax cër bi nga xam ne nii moom lan am ci àdduna suñ boroom moo nu ko wutal moo nu ko bindal te du jaas mukk faw nu jot ca yeefus xañewu ko njàmbaar mayewu ko waaye suñu boroom a ko dogal bala nga xam ne yaafus xëñiwu ko njàmbaar mayewu ko nga bëgg caa am loolu la suñu borom bindalut sag xirañ sag muus sag ñaw sag cawarte sa farlu du la ko mën a may mukk waaye nag itam lim la xas bindal moom loo yaafus yaafus danga nga ci jot kon loolu jërut yenn maanaam teg sa bakkan yenn jànkonte yi li ko jar mooy jëmmi suñu borom ji ak sàkku ngërëmam kooku moo war moo jar nga sonal sa bakkan coono bu ne waaye adduna moom jëru ko dëgg la sunu borom ci boppam moo wax ci alquran ne huwa alladi jaala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi kon moom moo digle fàggu fàggu mooy liggéey moo ko digle waaye nag diglewul firfiri bëgg ko doo ci firfiri doo ci rey sa bopp dangay jaar ci yoon wi ñu koy defee ba noppi bàyyi la cay juddoo ak sa sa boroom ndax tegu ko ci loxol kenn bu dee am la mooy amal bu dee ñàkk la mooy xañe waaye kenn ku dul moom munta amal kenn kenn ku dul moom munta xañ kenn su ko defee kon la jara yittewoo la jara xëntewoo la jara farlu la jara jox say waxtu sam xel sa sago sa alal mooy wut sa ngërëmal boroom te wut sa ngërëmal boroom day yomb na lool ci ginnaaw cheikhul xadim radiallahu anhu wa amin ndax moom ci boppam de moo wax ne chakartuhu ala firaqiya alxisaab wa jaalihi kulliyati xayra ixtisaab maanaam lépp looy sàkkoo tuyaa bo ko ci mbirum sëriñ tuuba moo ci gën a gaaw gën la caa mën a yeggale ci la nga cey wut kon nu ngeen doolee góorlu bu ngeen amee tawféex ji nga xam ne dafay mel ne du ndey du baay du kenn koo xam ne ki moo leen ko tax a am lu dul mbaaxu yàlla ak barkeb Sëriñ Tuuba mi nga xam ne moo bëgg ngeen bokk ci ñu am kon na ngeen ca sant yàlla te gën caa doolee góorgóorlu bu baax a baax a baax loolu daal lañu leen di soññi ngeen xam ne lu dul lii du dara ay neen rek la ay neen nag ku am xel du ko wuti du ca nekk du ca sax lu dul yàlla ak neen la yàlla rekk moo jar wut ndax boo ko xasee am amaale lépp ci biiram ndax lépp nga fa yàlla lépp wax na ne ci benn xadis boo xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali bu fekkoon ne nit ak jinne ka jëkk ba ca ka mujj dañoo dajaloo ci benn barab kenn ku ne laaj ko la nga bëgg lépp lépp lépp mu jox la ko lépp lépp lépp ba dara bañ des nee na bu fekkee ne dana wàññi ci la fa moom dara day mi ngi mel ne ëpp soo nga samp ko ci géej daal di koy dindi la ca puso bay di wàññi ca géej ga day lool yi nga xam ne moom la jox mbooloo mépp nit ak jinne ka jëkk ba ca ka ci mujj day mel ne lu toll noonu dong la wàññi ci la fa moom maanaam mooy wàññiwu fa dara ndax puso boobu boo ko ci defoon million yi yoon la muy wañ ci géej ga du mat ab litre kon wàññiwu ca dara la ñuy wax ginnaaw nag moom lool noonu la mel soo ko wutee doyloo ko mm, mu jaral la nga bàyyi sa yitte ngir wut ngërëmam mu wuutu la ca sa yitte yooye wuutu la ca say bëgg-bëgg wuutu la ca la nga xam ne ni moom la say morom di sàkku mel ne dañ koo munta ñàkk dala cay wuutu te bu la koy amal nam ko la nam la koy amale day gën a tedd gën a sell gën a sedd day gën a tedd gën a sedd gën a sell te it mooy gën a barkeel te danga koy jariñoo kon yéen moom nii ngeen def bu leen adduna yàqal dara dara dara ci lu mel nii lu ngeen mën di nekk bu waxtu julli fekk leen ca bàyyi leen loola te julli julli ji fa ngeen ko war a defee ndax sëriñ bi nee na lépp loo xam ne lii te na la joxe sa waxtu boroom wi ca waxtu wa ca mbooloo ma nee na loola doo ca jariñu doo jariñu ci julli ga waaye bu fekkee ne julli tax na nga bàyyi la nga nekkoon ak lu mu la yitteel yitteel yitteel nee na danga jariñu ca julli ga da jariñu ca loolee nga nekkoon ndax li ma ko waxee sànq yow jéem dong nga man kii àggale mooy suñ boroom te suñ borom moo la sant loole jaamu googee lam la sant nag boo ko defee mu àggaleel la la nga la nga la nga doon wut moo tax kon na ngeen yittewoo lu leen di may ngërëmal suñ borom di leen musal ci meram na ngeen ko yittewoo te ngeen xam ne topp topp topp yàlla ku ngi ku ni ku nuy topp yàlla lañ koy toppe sëriñ bi woowul kenn jëme ko ci leneen lu dul jëmmi suñu borom ji jëmmi suñu borom dong la woon nit ñi jëme kon nan fonk ndigali suñu borom yi nañ ko fonk bu baax a baax a baax a baax bu leen ne ay gone ngeen déedéet ndax ñu ci baree bari ci yéen ay mukallaf ay mukallaf lañu tey mukallaf kat du caagee ne mooy mag mi nga xam ne mooy sa baay wala muy sa nijaay rek déedéet képp koo xam ne kii àgg nga ci soo jullee amub yool soo julliwut am bàkkaar mukallaf nga dëgg la gone dees na ko digal jaamu yàlla te fekk matagul mukallaf waaye loolu tàggat ko ca la tàggat ko waaye boo xasee am fukki at ak juróom-ñett nekk nga mukallaf bu ñu la dee wax gone itam loolu ci aada la waaye du ci diine diine moom xamatul sa ngone ginnaaw nag mu kàllaf ngeen ñu ci ëpp kon bu leen jombale seen bopp dara bu leen ni lii am na ñu ko jagoo ñu dul man déedéet amut sun boroom li muy cërale ab jaamam ku ko sàkku rek mu jox la ko loolu mooy coobareem ku ko sàkk mu jox la ko dëgg la sax sàkku nga taxul nga yeyoo ko ndax mënoo caa mënoo def lu la ko may loolu ko def lu ko may mënoo ko waaye nag ginnaaw def nga li nga man te moom loolu la bëgg mu daat lay nag gàttandu ak yërmandeem defal la li nga bëgg loolu nag amut gone amut mag amut ko bokk fii amut ko bokk faa te ngeen gën a jàpp jëmmi Sëriñ Tuubaa ji xam na cër la boo xam ne ku ko séddoo seddoo nga cër bu doon na ngeen gën a fonk ñii ñuy askanale ci moom ndax jëmi sëriñ bi nun gisuñu ko dara darajay di jëflante ak moom dara donte leen loolu am nañu ko yàlla may kon nun lin man mooy sàkku ko ci njabootam gii warmaal leen fonk leen ngir yàlla di leen teral ngir yàlla ba noppi soo noppee ci ñoom sa mbokki taalibe yi ak sa mbokki jullit ñëpp ngay jëflante ak ñoom noona ndax jàng ngeen mu jàngal nu moom sëriñ bi ne mbindeef mu ne del sàmm xaqi ku ko bind ci moom te bañ a xool jëmmi mbindeef kii mbindeef nangam la rek lu mu mën di doon rek mbindeef mu mën di doon sàmm ci àq yàlla su ko defee kon sa mbokkum jullit moom taxul ñuy wax ndax ne ko Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu daan waxee ne innamal mu'minuuna ixwa mënoon naa ne innaman naas waaye waxu ko innamal mu'minuun la wax nee na nag suñ boroom daf na bind moomal nu boppam digal nu tere nu dig nu tëkku nu lim dige mi nga ànd ak ndigal yi lim tëkkoo mi nga ànd ak tere yi loolu nañ ko bokk xam nun ñëpp ku nekk ci tere yaa ngi ci tëkku tëkku yi suñu borom ku nekk ci ndigal yaa ngi ci digab suñu borom te suñu borom du wóoteeku dëhalam mukk inna allaha laa yuxlifu almiaad kon ni ma ko waxee na ngeen gën a warmaal ñi nga xam ne ñoom la tudd tudd sëriñ bi ak taalibe mun tarafet te àndut ak loolu ginnaaw bu fekkoon ne man mii dong dama siq ak yow defal la loo xam ne danga ma cee sant bu baax a baax boo gisee kenn ci sama njaboot doontele tooñoon na la da nga nëbbu tooñ googee ngir sama jëmm bu fekkee ne man dong maa jëflanteeg yow ba nga defan di ma def noonu gën kii nga xam ne moom amul kenn ku la mën a defal lim la defal kenn Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu nee na lam lañ daan defal as gor ba muy wax naan yàlla naa fekkee sa bis ba mu jaral ma nangam ak nangam nee na loolu asakaalu li nu sëñ Tuubaa defal noonu te te moom dafa am bis boo xam ne dina ñëw ca kanam bis booba nag nan ko waajal nun ñii kat ku ci mat la nga doon nekk ab murit saadiq boo xam ne yaa ngi jéem a jëfe ndigal yi la nga man daw tere yi la nga man mën ngaa bokk ca ñamuy puukare woo bu ëllëgee yàlla na nu ci yàlla dimbale nun ñëpp boole nu ca ñooñee kon nun ñëpp nan bokk gën a góorgóorlu rek gën a góor góorlu rek bu kenn taxaw bu kenn geestoo bu kenn jàdd yoon wi daal mi ngi nii jub xocc nii ngeen ci jaare rek na ngeen ci wéyee noonu fonkante ci biir wóolante kenn ku ne di wéttalu sa moroom kenn ku ne di euh, ndimbalal sa moroom ci liggéey bii nga xam ne moom ngeen ànd ndax bu ngeen ci wéttalante dimbalante ci rek dana yomb ci yéen mooy gën a yomb kenn ku ne bu bare woon di ko jéem a def loolu itam na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax kenn ku ne daal na wóolu moroomam ba def ko muy boppam na yéene moroomam ba li moroomam am moo koy gënal li mu amal boppam loolu bokk na ci jikkoy am murit ndax mooy jikkoy ab jullit te jullit dëgg mooy murit xëy na suñ ko toppee itam li nu wax dañ koy waxaat rek luñ ci dolli rek ak waxaat la teyit nun waxunu wax suñu waxi bopp dañ leen di fàttali dong fàttalente ak yéen li nga xam ne moom lañu sëriñ bi digal lii daal buñ ko defee insha li nu bëgg fii ci àdduna danañ ko am waxuma laa nag li nu tax def te mooy ëllëg yal na nu yàlla dolli tawféex yi Euh, Sëriñ tubaa mii nga xam ne nii moom la ñu cërale muy cër bu doon yal na nu dolli tawféexi gën a cëru ci moom lépp luñ cëru ci moom rek yal nay asaka yi li nuy cëroo ci moom ci liy ñëw nun ñëpp yal nañ maase euh, nekk ci ginnaawam kenn bañ a jàdd kenn kenn bañ a wuute wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.